mbër ak suñu papa yi fi nekk ancien gloire yeeg ñëpp ñëpp kontaan nañ sincèrement par suñu xool dafa sedd parce que lii loo xamante ne am na président yi fi jaar yàlla def na teguñu ko seen loxo te yàlla def Macky ñëw muy suñu président de la république mu defal ñu lu mel nii kon donc dañ koy sant bu baax a baax a baax waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam ci barke Seydina Mohamed. Papis gaa ngi coow sa digganteeg Boy Niang di ko coow bëccëg. sama combat ak Boy ah waaw mais c'est normal gars yi coow ko nañu xaar rek mu taxaw bu taxawee kay dinañ xam. mais est-ce fi nga jóge tey gis nga ni c'est un peu jaadu nga wàññeeku woon ba rek ku mel jaaduwul mais xam nga lamb moo tëddee noonu des fois il nga may say raq pour ñu yéeg xam nga la nañ leen may rek comme bëgg nañoo yéeg ñoom lamb la rek waaw nañ ko yaatal daal buñ koy yaatalee lamb ji di gën a neex mais buñ ko yemale ci benn benn benn. ben ci ben euh, dynamique bo xamantene ñun mbeuri mag rek ñun ñoy yem suñu biir dedet il faut comme nit ñu yoto bañu ñu ñun ñun tam na ñen yéewatu. bañu ko jël slanger bu melni boña est-ce que wóor na ci sa carrière. da wóor na sama carrière Allah mo ci wóoree di combat la combat la rek mais lo ci man kan nga fi beurel ko gis yow ah wa mbeuri bari nañ deug la wa lu neex la nak combat bu neex a ngi non maa koy nuyu en passage di ko ñaanal yalla yàlla na ko yàlla jamm jàmm demoon hôpital ba sax mais jotuñu gisse mak mom eh, gisante nag wajurum bu jigen waaw wona raxam tam muy mawdo xol naka grand bi naka yaram muy feex yalla na ko defal jamm yalla yëkëte ak jamm daal. Papis euh, li nga jot dundu ak ni nga meloon sa yaay dund actuellement. ba mais xam nga lepp lo gi sante yalla la moy limay wax rek ñun ñëpp ay marchandise yu yalla lañ yalla bu mu ci soxla da koy jël comme yalla soxla nako moko fi indi won jëlaat nako dañuy sante yalla delo suñu xel ci yalla ñaanoko yalla fi mu joge fa mu jëm ko fi mu joge sama yaay la won sama xarit la won mën na sama lepp la won sama bras droit sama lepp kon donc bu ko fi yalla jëlee am na tax mu jëlee ko fi kon sante yalla la waaw di ko ñaanal yalla dal, fu mo tol dal mang koy ñaanal dal di wax bépp supporter Lac de numéro daal bépp kilifa rek képp ko xam day ñaan rek maa ngi lay ñaan heure bo rek sanil sama yaay ñaan bu baaxa baax ndax sama xarit la won avant muy génn àdduna ci diggante boobu noonu diggante fajar gi noonu ba mu ñëwee toog moom defaral ndékki mu defaral ndékki gis nga li yàlla def diggante 10 heures midi mu génn àdduna waaw kon ko xam nga ku bëggoon njaboot nag.